أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndorteel ñu jël ci mat bu ñi nga xam ne nañ ko jagleel dugg saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu ci bind bi mu jël taane ñu ngi doon waxtaane Seydina Omar ba waxoon ci li jëm ci ak tuubam ak xilaafaam ba ni mu wàccib liggéey ñu waxoon ne danañu waxtaan ci saxaaba bi nga xam ne moom moo ko wuutu di jàmbaar koo xam ne ak xilaafaam lu yàgg la it mu liggéey lislaam liggéey bu rëy bu yaatu boo xam ne jeexit liggéey bu bët yi ñu ngi des ci sunu kanam ci noonu lay continuer ba ilaa yawmi diin incha allah muy Seydina Usmaan ibn Xaffaan di saxaaba bi ñu dàqantal sunu réeni borom ñaari leeri bokk ci waa Quraysh wax nañ ne mi ngi gane jamono dëkk boobu ñu naan Taif mu jiitu mag foofu la gane jamono wax nañ ne ginnaaw xew-xew boobu ñuy wax amul fiil nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajeel ak ñëw jamonoom ci zahir moom la dajeel wax nañ ne at moomu ba mu amee juróom-benni at maanaam ginnaaw atam ñay yi juróom-benni at ci la Seydina Ousmane dina jamono moom it di ko xam ne wax nañ ne mbaax ak jikko ju rafet ak melo yu baax loolu du yàgg la ci moom du jiitu muy doon ak jullit dañ xamoon ci moom melo yooyu yàlla defit muy ko teel a dugg ci lislaam teel a nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote bi biñu waxtaan ci Seydina Aboubacrine waxoon naa ne am na kilifa yu mag ci saxaaba yi ñoo xam ne seenu dugg ci lislaam Seydina Aboubacrine moo ko sabab kilifa yu mag yooyu Seydina Ousmane mii ci la bokk Seydina Ousmane mii Seydina Aboubacar moo ñëw ci moom xibaar ko lu jëm ci mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko ko waxee rek mu ne ko xanaa du kooku ñu laa wooye al amin mu ne ko waxati moom la mu daal di nangu wax ñaari mu seere yi ci loolu mu nekk fa di jéng jéngal wala muy sëkk sàkk doonoon it ab commerçant boo xam ne yàlla da ko dimbali woon mu nekkoon ku bari wërsëg waaye it bari loo xam ne ci lislaam taxaw na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca li ci ëpp wala lu ci bari ci alali Seydina Ousmane lañ ko taxawale te loolu dinañ ci junj lu bari ci waxtaan wi incha allahu taala Seydina Ousmane moom moomu bokkoon ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu place am nañ am nañ am nañu wàccuwaay bu mag ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax yonent bi da ko rusoon te daani wax daana waxit ne jëm ji nga xam ne malaayika yi dañ ko rus suñu borom di ko rus di ma rus ko lu yàlla la wax nañ ne am na melo yu nekkoon ci moom moom Seydina Ousmane yoo xam ne faaw ku ko gis rek dañ ko daal di rus ñu weggu gi yàlla defoon ci moom ak xayba gi ragal yàlla gi ak jëmmi melo yi ko yàlla bindee soo ko gisee rek faaw faaw da nga am kersa ci moom bu fekkee nag jullit la loolu moo waraloon ruus gi di yonent bi rek waaye saxaaba yi ñu ci bëri dañ ko rusoon lool moom Seydina Ousmane mu am it loo xam ne yàlla moom la ko jagleel dama naan ci taarixul basar ci histoire doomu aadama muy benn nit boo xam ne yàlla taw féexal na ko mu yor ñaari doomi yonent kooku mooy Seydina Ousmane ndax moom mooy sëriñu wala mooy borom këru doom yonent bi ñaan Roqiya moom la ko yonent bi njëkk a jox mbokk yi moom wax nañ ne doomi abu lahab moo ko yoroon ku ñaan xutba waaye bi tabat yi daa wàcc la abu lahab mer ba xam ne daal xutba daa bàyyi ruqiya ñu ko bàyyee rek si naa Ousmane yëgee xibaar bi ci la ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sàkku mu jox ko soxna ruqiya yonent bi am ci njëkk jox ko ko mu daal di doon gorob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax daa yor doomam moom Seydina Ousmane wax nañ ne ci jamonoy xare Badar ñi nga xamee ne ñi ngi xare ji dañu ci mbokk yi tawatal bi nekk def lu nekk ko mën a toppatoo ci la yonent bi joxe ndigal Ousmane mu toog toppatoo soxnaam soosu di Ruqiya ndax tamit da metti yoon na lool waaye teewut jëfe googu mu jëfe ndigal borom xam-xam yi nee nañ teewutuñu Badar waaye am na tiyaa bay ku teew Badar ba ñuy séddale it metti woon jox nañ ko wàllam loolu tax ñuy digg ci mbirum sëriñ bi ci gës bu boo ñëwee da nga gis sëriñ bi bi muy nekk li ñi nga xam ne ñoo teewoon Badar ñu tudd ci ñeenti saxaaba yi nga xam ne ñoo xulafaam arbaan soo moytuwut mën ngaa jàpp ne leneen la fekk nii mu ko waxee noonu la demee Seydina Ousmane teewu ci zaahir waaye teewu ci baatin moo tax bi sëriñ bi wax ci gës bi la ne wa fiihimu man nakaha binti ra'isin sulaha nuurayni xiina aflaha bi xatti kulli masami muy wax ñi teewoon Badar mu ne bokk nga xam ne dencoon na ñaari ñaari ñaari doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wooye doon ñaari leer yi moom bokkoon na ci ñi nga xam ne teewoon nañ Badar ci baatin biñ jullisee Badar daanaka sax ñu ngi naan li tax wuñ wala damuwuñ wala wanewuñ ci nit ci bi agsee Medina mooy toggi googu nga xam ne moom lañ toggi ruqiya muy doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la wàcc liggéey yonent bi liggéey ko mu kaltum jox ko ko moom Ousmane mu yore ko mu kaltum moom it dara ci noppalu nga xam ne ñaari doom yonent boobu yu yor na leen moom Seydina Ousmane Seydina Ousmane ku am wàccuwaay la ku am histoire la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi toll na bis Aboubacar ñëw yëglu ñu ne ko Aboubacar mooy ñëw mu ne na yëgsi ñu toog ci kanam Omar ñëw ñu ne ko Omar mooy yëglu mu ne na yëgsi ñu toog ci kanam ñu am ko yëglu ñu ne ko Seydina Ousmane la mu jaay mu daal di daal di defar wax bu baax a baax a baax defaraat toggaayam bi siccaat ay yéreem toog toggin bi gën a jekkaat man na yegg nga xamee ne saxaaba yi luñ masaa gis lu leen jaaxal dañ koy laaj laaj ñu ko ngir am wala ngir wedd waaye dañuy laaj rek ngir ko nga xam ngir bëgg a dindi ak sikk sikk seen xol ñu laaj ko tëdd ci lu waral loolu mu xamal leen na leen ñu mujj yi dama am ci moom kersa lool muy Seydina Ousmane mu ko rus moom nag war naa ko rus ndax yàlla rus yonent ku yàlla rus malaayika yi rus la yàlla na ci man ma rus la lu yonent bi wax na ko ci seetal Seydina Ousmane mbokk yi ñoo ko nit baaxam wax nañ ne daana def addi yu def mu gore mu goreelu jaam mënoon a joxe addiye la it jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina ci xare yi jëm ci wàllu finance di laa taxaw bu baax a baax a baax a baax ndax bokkoon na ci ñi gënoon a jur ci saxaaba yi joxe gi gën a siiw ci joxe gi nga xam ne moo ko may lu bari ci ay maqaamaat daraja mooy xare boobu ñu woowee xasatu Tabuk mooy xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def xare boobu dafa dajale woon ñetti nit yu dajaloo muy naaj yu tàng lool ci jamono jooju yóbbal bu ñëw lool ci jamono jooju distance bi sori lool ci jamono jooju ci xare bi ñu ñàkk ñu def ko waaye jamono jooju nag xëy woon na ba kenn yorutoon ay waruwaay wala ay yóbbul yoo xam ne nii boo demee ci yoon wi dina mën di xéewal ko nekk ci yóbbul yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot def déclaration wax ne képp koo xam ne taxaw nga joxe fii ci xare bii nii la nga xam ne suñu borom mi ngi lay njëkkee àdduna donc côté boobu Seydina Aboubacar moo njëkk ñëw indi alalam ji yépp ba yonent bi sax ma nga naan ko Aboubacar loo fa bàyyi mu naan ko yàlla ak yonent bi daa fa bàyyi Seydina Omar ñëw na moom it di lu bëri di ko yéen di laajee moom it ne lu toll ne lii mu andi laa fi bàyyi waaye Seydina Ousmane bi mu ñëwee ak alal ji takkoo takk ba sax àdduna ci ne nañ àdduna ci ne xare boobu julli bi jotoon nañ daanaka ñetti junni nit waaye jàppal na junni nit bi sulusu julli sax maanaam julli mbooloom bi ñu xaajoon ñetti xaaj benn xaaj bi li Ousmane andi ci àdduna mat na leen warwa ay warwaay mat na leen it ay yóbbul yoo xam ne lu xare bi yàgg yàgg dinañ mën di bind ci addi yi nga xam ne moom la Seydina Ousmane indi loolu lañ ko jural mooy xol bu sedd ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bam jug taxaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan Ousmane bi mënatut a defee ci loo xam ne nii suñu borom dana ko topp daf koy seereel àddinaam ne Ousmane bi àddinaam leer na kon su maa ko ñaanal nag bu bët set man suñu borom yàlla na nga gërëm Ousmane moom gërëm naa ko yow suñu borom yàlla na nga gërëm Ousmane moom gërëm naa ko moom nga sëñ Tuubaa di junj ci laa yee naan baatal nabiyu ilaa fujrin yarumu lahu ridan min allahi saa tasjilu kubbaru yonent bi taxaw na di ñaan di ñaan ginnaaw ba mu julee gee di def safaak bi kar ba naan yow yàlla yàlla nga gërëm Ousmane man gërëm naa ko yow yàlla yàlla nga gërëm Ousmane man gërëm naa ko bañ noor bi noor bi nga xam ne loolu mosuñoo xam yonent bi def ko tey ginnaaw loolu gisuñu ba xalaat ko kenn lu liggéey gu rëy la ba àgg ci bu ne Ousmane dina ramu juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne sawara lañ waroon na dem ñoom yëpp waaye ci baax Seydina Ousmane ci jëfam ju tedd ji nga xam ne yàlla nangu na ko juróom-ñaar fukki junni nit yi dinañ leen dogale ci yoonu sawara wa wala dinañ leen génn ci sawara dugal leen àjjana ci loolu ci koy def mooy Seydina Ousmane loolu it sëñ bi ñu koy junj naan wa fiihi xaala nabiyu Ousmaana wa fiihi xaala nabiyu Ousmaanu yasfahu fii sabxiina alf alfan wa kullun xaquhu naar mu ne wa fiihi xaala nabiyu ci Seydina Ousmane moomu yonent bi wax na ne Ousmaanu yasfahu fii sabxiina alfan wa kullun xaquhu naar Ousmane dana ram juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne nii sawara lañ waroon a dem ñoom juróom-ñaar fukki junni nit yooyu nga xam ne moom mooy xool te ñu ko neex ba mat juróom-ñaar fukki junni nit muy gën àddina ci liggéey bu rëy bu nga xam ne moom la defoon ci addi ju rëy jooju nga xam ne moom la defoon te xasati Tabuk Seydina Ousmane mbokk yi ku yàlla gërëm la ndax yonent bi wax nañ ne seeral na ko ay àjjana ay yooni yooni yooni yoon ay yooni yoon yoo xam ne ni daal day def jëf joo xam ne xolu yonent bi da ciy sëgg ba mu boole ko ci ñi war a dem àjjana ba muy limit fukki yoo war a dem àjjana yi boolewaat na ko waaye ciwut Seydina Ousmane nee nañ ràññeeku lool ci xiyaamu layl dañ daa wax sax naan rakkaa bi gën a gudd ci jamono jooju ñu ko daa taxaw mooy Seydina Ousmane koo xam ne nii bu fekkoon ne nit ñi daanañ naafila ci guddi gi di noppalu moom xamuy xamewuñ ko woon noppalu dañ ko xame woon fanaanee taxaw bëccëg moom Seydina Ousmane bokkoon na ci meloom it muy leer lool gaaw ji lool ragal yàlla lool am kersa ci lamsam wax nañ ne kersa gi wegu gi nekkoon ci moom àggoon na ci ba ci buy laal ndox maanaam di sangu sax di summi yére yi yére yi mu sol yére yi woyof lay sanguwaale ngir am kersa ay awram loolu lenn la ci melo yi Seydina Ousmane bokk na ci meloom it moom Seydina Ousmane muy wax nañ ne ku woyofoon xol la daawoon a jooy la koo xam ne boo tudd lu jëm ci yomal xiyaam ak biyee wala ngay tudd ci bis ci ak yi ci aju bu ko gisee rek ci alquranul karim mu dégg ñu wax ko di nga daal di gis rongo ñi di wadd moom Seydina Ousmane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it mas na ko wax ni ko maa ngi lay xamal maa ngi lay digal ne la yow mii ab sahid ngay doon maanaam ku ñuy rey ci yoon bi ngay doon rey goo xam ne nii day ànd ak natt moom Seydina Ousmane bu ko yonent bi waxee loolu loolu it mos dañ cëm xelam boo xam ne moom dëgg dëgg bu faatu faatu ñetti la bàyyi woon na xel lool ak mujjam loolu tax bi nga xamee ne Seydina Omar jox na ko mu wutu Seydina Omar te yàlla def it ak xilaafaam bokk ci xilaafa yi gën a yàgg ci xulafaa yi ndax wax nañ ne toog na lu mat fukki at ak ñaar xilaafa gi liggéeyal la ci islaam liggéey boo xam ne ni ñu ko waxee ci tàmbali bi léegi jeexi ji ba tey ñu ci def bokk na ci muy dajale gum dajale alquranul karim taxfiij ko def ko benn mushaf copier ko tasaare ko ci àddina bi ñu yoroon copie yu njëkk yi yëpp mu intégrer ko dugal ko ñu yor ci wax nit ñi forcé leen ci ñu yor kaamil bi nga xam ne mooy bii ñuy jëfandikoo te loolu la ko waraloon mooy dañuy demoon ba gis ak sukkandiku nit ñi ci alquran mu mel ne daal am na luñ ciy bëgg a wane yàlla suñu borom xeet bi xeet bi ak jaam yi ci jaarale ko ci xeetle googu ci Seydina Ousmane mi waaye ràññeeku woon na it ci xilaafaam il futuhaat yu bëree bëri maanaam yegg dina lislaam ji fu bëree bëri ci dëkk yi waaye yaatale jàkk yi màkk ji nga xam ne fa la ko bëgg a nekk ak jàkk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu nekk madinatu munawwara bokk na ci ñi nga xam ne ñooy ñi ko njëkk a yaatal yaatal bu yaatu yaatu yaatu moom Seydina Ousmane bari it ñoo xam ne dugg nañ ci lislaam ci xilaafaam ñu bëree bëri bëri bëri ba tax na sax injaasaat yu rëy yi nga xam ne moom la def taxoon na bari woon ni noonu la ci naafiq yi rawatina naafiq yi nga xam ne ñoom ay ndaw lañ yoo xam ne ñoo judd ci lislaam jiitu jiitu ñoo gis jiitu ñoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nañ saxaaba yi ñooñu complot complot boo xam ne ni yàgg nañ ko complot boo xam ne nañ ko bëgg a faat wala ñu folli ko ba wax nañ ne sax kibaaru saxaaba ñi nga xam ne ay saxaaba lañ ne su fekkoon jamono yonent bi ñëw nañ ci Ousmane ay yooni yoon ba wax ko dañu sàkku si sax ñu jox leen digal ñu jàmmaar rek ñooñu waaye saa yi ñu waxee rek Seydina Ousmane di leen ni jox ngant bi nga xamee ne am na juróom-ñaar juróom-ñetti fukki ak lu teg ci la ñooñu nga xam ne yoroon complot ñëw ba këram gaaw ko lu mat ñeent fukki fan yoo xam ne nii dañoo gaaw kër gi wër ko lekk du fa dugg naan du fa dugg Seydina Ousmane tëju ci biir këram yéen kaamil alxuraan bi guddi ak bëccëg di jàng fenn ko lay jublu tànk di ko boole ay nawaafil wax nañ ne guddi gi nga xam ne moo jiitu guddi gi mu faatu gént na ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu tiimug lekk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Abu Bakrin ak Umar nee nañ Seydina Ousmane ci gént yi mu ñëw di jege si ngir di xéwlu ci lekk waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dana ko tey kat waroo bokk ci lekk gi ñuy lekk suba insha allahu taala danga dugg si fii ci ñun àddina xam ne la yonent bi di ko wax loolu ci gént gi ñun bi mu xëyee rek mu xam ne la ko yonent bi waxoon loola ñu ngi dul yegg si te bis booba ba mu xëyee daana di woor ngir barkeelu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu ko waxoon ci biir gént gën ko fi ñu ngay ndogoo bis booba rek la noon yi ak naafiq yi yegg si ci kër Seydina Ousmane fekk ko mu feram ko laayu jubli tànk bi jàng alquranul karim ñu dugg ci biir jàpp ci sikkin bi Ousmane sikkin bi dafa guddoon lool gisam ko waaye jëm ko ay jëm jëm yu bëree bëri ci baat bi ak ci yaram bi ba dee jooju tuuru ci kaamil bi ba ci aaya boobu ñu naan fa sayakfiikumullahu wa huwa samiun alim ci suuratu Baqara wax nañ ne fa la jaar ji tuuru Seydina Ousmane ba di wàcc liggéey ci jamono jooju nga xam ne booba ñu ngi amoon juróom-ñetti fukki at ak ñaar. ñu dem ci naq ya jëmmam nag wax nañ ne nekk tam ku fees lool wala ku ñuul lool waaye dafa xeereeroon dafa yemoon ci digg maanaam weex suñ tal comme ni Seydina Omar mel te it nekk suñ ko gudd lool wala ku gàtt dafa yemoon fii woon nañ ci moom it mu nekkoon ku bari karaw lool bari woon li muy lamsal ak li muy sëgg ragaloon yàlla lool jooy yu bari yi boo masaa gis kanam gi rek da nga daal di yëg ni kii ku bëri lu muy jooy la ngir niñ doon feeñee ci xar kanam bi moom Seydina Ousmane ñu ngi ñaan suñu borom mu fayal ñu ko suñu borom julli ko ngërëm danañ gis it ci mbindum sëriñ bi bëree bëree bëri sëriñ bi fu muy tudd xulafaa yi bu agsee ci moom di ko tagg aw teggin woo xam ne wu neex lay doon wu ràññeeku it lay doon bu demee ci muqaddamaat mi nga xamee ne tudd na Seydina Abu Bakrin tudd Seydina Omar ñu agsee ci Seydina Ousmane loolu dañu wax ne afi sax ji man daaham na xafaana salxaya lahu nuuru suma nuuru nixmal ma buyu ndax ci saxaaba yi am na ku ci mel ne Seydina Ousmane moom moom mu nga xam ne mooy borom leer bi borom leer yi sax wala borom ñaari leer yi ngay gis ak ràññeeku bu baax a baax a baax ci xeetu tagg yi nga xam ne moom la ko sëriñ bu mag bi di tagg boo demee ci raaya mu dégg mu naan xaasa shahaadata wa nuurini summa lahu min ar rasuli xusuusaatin wa asraaru moom moom nga xam ne yàlla dimbali na ko mu nekkub shahid di borom ñaari leer yi moom jëmm jooju bi am na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jagle yoo xam ne nii keneen amu ko ak ay secret yoo xam ne nii keneen amu ko moom Seydina Ousmane kon mbokk yi Seydina Ousmane bari na lool luñ mën a wax ci moom loo xam ne nii mën naa ëpp ay waxtu waxtu waxtu waaye ci tënkal lii mooy dund Seydina Ousmane lii na sëkk rek ñu ne alxuraan ju kër ji ñuy jàng wala kaamil bi nii nga ko gisee ñu di fekk ko nii te ñu war a dem bàyyee ko nii ba ilaa yom di mu mel nii liggéeyu Seydina Ousmane la radiyallahu taala anhu it bari na ay xew-xew yoo xam ne xew na ci lislaam yoo xam ne moom moo joxe alalam ñu taxaw xew-xew yooyu ba mu jàll kon mi ngi wàcc liggéey ci weeru tabaski ci fukki fan ak juróom ñett ci fanweer ak juróom ci gàddaay yi kon daal ci tënk lii mooy dund Seydina Ousmane ci jaar-jaaram ñu ngi ñaan suñu borom mu ko gërëm kon xam naa dañuy daal di waajal waxtaan bi nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa di buntu xam-xam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nee na woon bu ma doon bu ma doon buntu xam-xam da ngeen xam ne Seydina Ali mooy buntu ba di ko ràññeeku ci ñaar yi muy xam-xam ak njàmbaar suñu dikkee ci moom la ñuy waxtaan ñu ñaan suñu borom moo bi la ñu tawfiq bi la ñu njëggal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu